jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a nuy seetaan fu waay mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaara ci présentation bi seen mbokk Arona Cissé ci wàllum caméra bi Modou moom moo fa fare mbokk yi nag xam ngeen ne ci suba ba léegi ñi ngi ci dëkk bu sell bii di Poroxaan ci bis bi nga xam ne ñi ngi ciy fàttaliku soxna jaaratullaahi maam Mariama Bousso di wéyjuru seexul xaddim fenn fu nekk nit di fi jóge ci réewum Sénégal waaye sax ci àdduna bi gis ngeen bi ñu demee fële nga xam ne moom moo di ca bërëb ba ay gox yu fasantikoo population bi ñu ngi fiy jógee di ñëw di teew si fii si poroxaan ngir sàkku si yiw waaye nag mënuñoo wax poroxaan te waxuñu daara ju mag ji nga xam ne mu ngi ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di poroxaan mu daara joo xam ne jamonoy mu Moustapha Bassirou jàmbaar ja ci lañ ko taxawaloon ay junniy junniy maam jaara di ay tuut tànk di fi wattoo téere borom bi ay junniy junni mokkal fi téere borom bi subhaanahu wa soxna si ngeen jàkkaar lool turam di wuyoo ci soxna maam Awa Dem ku xool jëmmam xam ne macha allah dégg na kaamil bi waaye yëfi yemul rek ci dégg kaamil bi yëf yi day ànd ak déggal kaamil bi mooy alxuraan jang koy jàng ba noppi di ko jëfe maam nekk alim ba nokk ba noppi nekk abit waaye ku xool soxna si ak taxawaayam xam ne wax dëgg yàlla macha allah liggéey bi boobaak léegi mu yor di ko amal ci anam gu mucc ayib ba Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif xalif général des mourides bi mu ñëwee it wéyal loolu ci moom responsabilité daara ji nekk ci loxoom euh, moom nag ak gënam yonent bee ko tudd ndax moo ne xayrakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng ba noppi di jàngale kon ak gënam man tudd ma ko keneen tudd ko yonent bee ne soxna maam Awa Dem moo bokk ci ñi gën ndax daana ci li gën muy jàng alquran ba noppi di ko jàngale waxumala dara mais it di def ci ñoom ab yar muy yarub lislaam te ku xool maam jaara yi nga xam ne ñu ngi génnee fii yemut ak maam jaara bu génneewul fii moo tax macha allah daara ji ñu bare bari am nañu xemmemteef andi fi seen doom euh, mbir nag nit dana def lu baax ba pare teg ko ci loxo yoo xam ne duñ ko waggar waaye ku ñëw ci daara ji xam ne soxna maam Awa Dem macha allah li nga xam ne kilifa yu baax yi rawatina xalif général des mourides doyloo na ko ba teg ko ci loxoom macha allah sàgganewu ko te it lépp lu ko ci war mi ngi koy def. tey jii nag ci bisu poroxaan ñu ñëw fii xañ na yitte yi bari na nit ñi saafonte bi bari na waaye mu may ñu ab cër ci boppam ngir suñu jëmi wayjur ñu fa yéene seq ak moom ab waxtaanu gàtt rek ci doxiinu daara ji soxna si ñu ngi lay nuyu ginnaaw bu ñu dalalee fii ñu ngi lay dalalaat ci Touba Argentine TV waaye ci réew mi média waaye ci Sénévision fépp ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la bàyyi nga nuyoog mbokk internet yi nga xam ne jamono ji ñoom ñoo lay seetal. asalaamaaleykum Euh, sama doom euh, sëñ Arouna ak ñi nga àndal maa ngi leen nuyu di leen ziare lu bari ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ngeen bokkal liggéey bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan euh, seen waxukaay gii di ziare ñëpp ci biir réew mi ak bitim réew di kon bég seen tawaay tam ci bis bi ci biir daara soxna jaara kër soxna jaara ci turandooy soxna jaara fekk fi mbokk taalibe yëpp tamit ak daayira yi ñu ñëw di euh, xeñtu ko sëñ soxna jaara di seet si ndongo yi ngeen daje ñu fépp ci daara ji ñu ngi leen di sant di leen ci gërëm bu baax euh, di wax ne daara ji ni nga ko waxee sëñ Moustapha Bas moom sëñ Mouhamadou Basir moo ko sampoon fii ànd kook rakkam yi sëriñ Mouhamadou Muntaxa sëriñ Mouhamadou Fadal Mbàkke sëriñ Isxaaqa ak njabootam gépp ñu àndoon topp ci ginnaawam sos daara ji daara soxna jaar ak ay turandooy soxna jaar ndax dëkk bi dëkk soxna jaara la waaye dëkk ku ko moom ku ne faa war am kër moo tax mu wutal ko fi këram gii di kërug boppam mu mel ne mi ngi ci biir daara ji uuf ak njabootam di ay turandoom di leen jàngal yar jubluwaay bi loolu la woon jubluwaay bi loolu la boobaag léegi mu ngi bëgg a yàgg ndax 2005 la woon ba tey ñu nekk ci 2023 kon loolu mi ngi bëgg am ay at euh, moo indi fi turandoo yi nag ñëpp tudd soxna jaar euh, ñu fi jàng alxuraan fi jàng xam-xamu diine fi jàng xam-xamu àdduna rawatina métier yi nga xam ne jigéen dana ko war métier ngir mu am ci lu mu euh, dimbalee euh, borom këram ak njabootam kon loolu mooy li nga xam ne moo moo am ci daara ji mu doon daara moderne daara la waaye daara moderne la li ñuy wax daara moderne rek fii la njëkkee ndax daara moom boo ko xasee ba wax faw dafa war a am vocation daara. dem fekk fa ñu jàng alxuraan di ko mokkal di ko bind ci ay alwa di bind ay ay kaamil loolu la ñuy wax daara kon daara la daara cosaan mu ci biir man lañ ko fi defe jàng alxuraan ba mokkal ko ci ki ko mën a mokkal ba bind ko ci ki nga xam ne mën na ko bind euh, ci diir diggante lu gën a néew juróom-ñaari at lu gën a bari juróom at ci biir loolu ci la mokkal bind kaamil jàng xam-xam ah jàng tam ci métier ba am ci métier moo xam ne mën sa koo topp ci ñi nga xam ne seen alxuraan euh, euh, suñ borom danañ caa may rek waaye mukkaluñ ko ndax noonu lay doxee noonu rek lay demee euh, kon bu ñu nee moderne tamit dañuy wax ne daara ñaar rek mooy maanaam daara ji nga xam ne da ngay fay mbaa ñu lay fayal bi mooy indi la ci daara. bu nooree ngay jàng bu nawetee ngay liggéey la nga cee am nga bokk sa sëriñ daara mu sak pay mbaa soo jàngee ba tax sa àll wa nga dem yalwaani boo dikkee dundal sa bopp wala boog daara yi xew léegi eh, muy internat saa su weer dee sa waajur fayal la ci la ngeen diggee yaa jàngalekat ba daara ja waaye loolu lépp amu fi daara la internat sëriñ bi leen lép defal lépp bokk ak mbokki taalib yi kenn ku nekk ci màggal gi ni tey loo am rek andi ko kenn ku ne sa andi nga sa ci façon bi nga xam ne ci ngay yëngu ak la yàlla jox ci wërsëg ak ci man-man ak ci xam-xam nga ko ci daara ji kon doxin wi noonu lay doxee organiser ko organisation boo xam ne nag dañ ko teg ci wax dëgg yàlla xam-xam waaw sëriñ bi da ko teg ci xam-xam euh, wàllu njàng mi ci wàllu yar bi yor bi yëpp dañ ko teg ci xam-xam yoo xam ne euh, wax dëgg yàlla buñ ci jaaralee nit rek dina mën a su xelam euh, neexee dara rek dana ci mën a am loo xam ne lu am solo lay doon ak condition yi yëpp mat na euh, lépp dañ ko fi indi seen dara manqué kon loolu tax ñu ne daara la de waaye dafa moderne ndaxte la ñuy am ci daara ji am ñu ko ci seen kër yi ci wàllu xéwal yeeg waaw ci lépp ci pañ meeg xéwal yeeg li ñuy jëfandikoo yëpp kenn ku ne xamal nga sa bopp ne li lay defal boo demoon seen kër itam doo ko fa mën a am ñun ñii tamit kenn ku ne ci sa kër loola amu fa kon nag sëriñ bi def na li man lépp ngir xale yi jàng waaye ci jàng ci condition yoo xam ne condition yu yu am solo lay doon kon noonu la daal di tëdde ñu lu bari di fàttaliku sa waajur ba ci xam-xamam ci xelam mu rafet di bàyyi xel bu baax ci ne loolu la ñu war a euh, di ko nafar la ñu war a nafar la di ko nafar bu baax a baax kàggu la nga xam ne euh, dañ ko war di nafar ak ñeneen ñi mel ne moom ci wax euh, wax yoo xam day jariñ ñu ci mën jariñu bu baax a baax ku ma am maam jaara da nga am sañ-sañu indi ko fi waaye dafa am condition yoo xam ne tamit mooy condition yi ñu fi indee soxna jaare ci daayira lay bokk soo defee bu nekk yaa indi sa maam jaara noonu la sëñ bi waxoon soo indi sa maam jaara ñu jàngal ko yar ko soo lëggee mu ñëw ca gox ba mu nekk dafa jàngale dafa yare waaw te yu bari yu àndoon ak ci liggéey bi la daayira yi mosuñoo ñàkk ànd ak sëñ bi ci liggéey bi di jëfal soxna jaara sëriñ bi da ko daan wax alal alal ji ñuy jox soxna jaara de ah dama koy def ci soxna jaara daaw ko def ci bopp dara ci boppam moo tax ma agsi ba defal ko daara indi ci soxna jaar yi eh, ñu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk ñoo nekk ci daara ci waaw juróomi téeméer juróom fukk ñoo fi nekk lépp ci fii la ku am juróom benn at fi dugg wala juróom ñaar ah, sëñ bi tamit dafa dem ba demande bi bari lool liste d'attente bi bari mu ne kon nañ koy tegoo bant parce loolu sëñ Mouhamadou Mountakha moo ko wax waaw ginnaaw bi daara ji gis ñu gis njëriñu daara ji ñëpp dëgmal ko mu ne nañ koy tegoo bant ñëpp ci yam nag foo mën a nekk ak koo mën a doon boo tuddee Soxna Jaara am nga fi place ci kaw nga am sens jaar ca tirage ba gis nañ Soxna Jaara ren boo xam ne sax du ab sénégalaise du waaw ma nga dëkk ca Burkina Faso tudd maam Ndiaye ñu andi ko ci daara ji daanaka déggul olof bu baax kon ñëpp ci bokk yam waaw waaye nag at mi jot nag danañ jël at mii rek jël nañ ci ay tut tànk loo xam ne dëgg yàlla eh, am na solo naa kon loolu bu yàggee rek dina am ñu bari ñu ci barkeelu waaw at mi jot liggéey na lañuy dugalaat léeg-léeg tam ñu toog ba ci yàgg rek ñu xool ah xam ne daara ji kat war naa mën a dolli dara ñu jëlaat ab lim dolli ci dolli fi nañ fi ñaari yoon bu nekk juróom fukk ci lim bi ñeent ñeent téeméer juróom fukk la woon léegi ñu ngi ci juróomi téeméer juróom fukk kon dolli nañ ñaari yoon juróom fukk kon at mu jot day am ñu génn am ñu dugg waaw noonu la ñuy def xalaat bi am na projet yi ñu ngi ci daara ji bâtiment yaa ngi fi defar nañ réfectoire bu ñuy wax fu ñuy euh, xewloo defar nañ ay dortoir yu ci dolli logement enseignant yi bien dire am na nañu ko fa woyu def bibliothèque yëpp ñu ngi ko programme mu nekk projet yoo xam ne yu xaw a yaatu la am nañu ci liggéey ba lu ci bari jël nañ ko waaye am na lu des ba tey waaw gi tamit dañoo jël ay eh, ñoo xam ne ñooy fóoti fóot fóot meeg bale meeg raxas beeg yooyu yëpp dafa am ay équipe yu koy def les équipe ñi baleeg yooyu danañ xëy ñoo defar nettoyé bu nañ ñu nettoyé bu dee ñi fóot dañu danañ ñëw lëndi léegi bu ne am nga groupe bu lay fóotal ba altine nañu ñëw fóot ba alxames ñu ñëw fóot dinañ fóotal néeg bu nekk ñaar yoon ci semaine bi ñoo xam dañuy jóge ci dëkk bi ñëw ñu leen di joxe xéwal ñuy dem di def loolu am ñuy togg am ñuy euh, lët am lépp am na fi kenn ku nekk rek ak nooy jàppee ci wàllu santé bi tamit ay mbokk taalibe yu nekk Amérique def nañ fi benn case de santé bu mag boo xam ne bu moderne la lépp a ci biir ñu équipé ak seen i médicament ak mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew ci biir réew mi di ay garab di ko fa def xam ne ku ci eh, am malaat ci biir daara ji rek foofu lañ lay njëkk a faje ba demee lépp nga fa hospitalisation am na fa yëpp nga fa am nañu am benn infirmière boo xam ne daara ji moo ko recruté ak infirmière kon ñaara nga fa di fa liggéey kenn ki dana ñoom ñaar fa la ñuy yendu am ko xam ne day fanaan xam ne heure bu nekk daal am na ko fi teew di jàpp ci sew sawaan suñu amee nag lu boo xam ne ëpp na leen ndox ñu yóbbu ko ci biir dëkk bi wala ñooro ba Kaolack. gi moom gis na ko tey jii eh, ay mbokki taalibe rek ñooy andi di ñaw di andi fu mu nekk ni barki mu séddoo nañ kenn ku nekk eh, am na ñu fi andi ñetti tëni am keneen ko andi benn juróomi tëni yoo xam ne ci moom la ñu war a sol barki démb tey kenn ku ne am nga juróomi yére yoo xam ne la ko ñëwal. indil la ko ak yeneen yoo xam ne tamit daara ji ñoo leen koy jox ak yeneen mbokki taalibe yi waaw nga xam ne kuy ñëw daal yére yi indi defe naa danga danga am ko gisee doole ko lool balaa école tëj ngay ba nga dem di ko yóbbaale. dañuy jàng alxuraan moom jàng marax ak fajar yëpp da ciy ànd waaye li officiel moom nga xam ne moo officiel ñu war a dugg ci classe yi mooy 8 ba 1 heure 3 heures ba 10 euh, euh, heures 6 heures ci ngoon. waaye njàng marax am na njàngum euh, fajar tam am na ñu ngi ko fi def waaye su boobaa duñ dugg ci classe yi dañuy dem ca seen kër yi di ko fa defee waaw. jërëjëf euh, soxna maam Awa dem ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm xam naa fondation Almuntaxa ñoom ñi ngi toog ñoom it jombul euh, indi nañ fi ay liggéey tey ci wàllu ay ordre de ak ya ca ajoog ay savon yooyu ngir jàppee ko ci wàllu hygiène bi. lu ñàkk ñoom it danañ dugalaat seen loxo ci yeneen jëwriñ yaa ngi ni toog yeneen fondation yi ñoom tamit ñoo ngi noonu di indi ñee gis naa fi ay ventilo ci aju kon ñu bari ñu ngi ci daara ji kon daara ji nañ ci gën a taxaw donte Cheikh Mahamadul Muntaxa sàkku ci ndimbalal kenn waaye nag lu baax la te sëñ saaba Bassirou ko defoon te lim ci defoon rek mooy lu gën a dëgëral taxawaayu maam jaara yi lu gën a yokk taxawaayu maam jaara Bousso eh, ak liggéeyam gën koo feeñal loolu la ci jublu kon ñëpp war nañ cee gën a dugal seen loxo soxna si ñu ngi lay santaat te di la ñaanal bu baax ndax xam nañ ne lii nga yanu du lu du lu woyof du lu yomb waaye ndimbalal sëriñ bi nga ci am kon nag yàlla na la sunu borom gën a sàmm di dellu di waat sa sëriñ ba sëriñ am di njaay moom sëñ Mbaye Ndiaye gol bi di ku baax koo xam ne macha allah doomam sëñ Mbaye Ndiaye sama xarit la noo ngi koy ziare bu baax mu nekk soppee sunu wéjur sëñ Fallou Cissé kon nag nii rek nga war a mel ndax ku xam fa nga bokk xam ne macha allah alxuraan nga war a waajee te moom nga war a wàllee Serigne Moustapha Bassirou mi ko taxawal tamit bi mu wanee ginnaaw ci Zahir sëñ taxaa mi ko fi wuutu tamit mat na liggéey bi sëkk moo tax ñu sëñ Alaaji Taala Siise moom Canaba di wax ne dem ba fi lu baax nee na lu nee na baax lu baax la ndax boo fi bawee lu baax te boo fi ñu baax lu baax loo fi bàyyi ñu rappal ko boo fi bawee lu baax nag jëmbat ko ba noppi ba fi ñu baax ñu koy suuxat macha allah day gën a màgg te loolu mooy firnde daara yi poroxaan ji fii ci maam jaare yi ku fi gis ku fi ñëw xam ne daara ji à chaque année mi ngi amal résultat waaye nag ñu ngi lay sant yow mi nga xam ne yow lañ ko teg ci sa loxo ndax sëriñ bi li mu mën rek mooy tabax taxaw taxawu barab bi li fi war ci wàllu financement mu di ko def waaye la koy doxal dëgg nag ci biir loola moom dem yow la yàlla na nga gën a dem macha allah ku sant dem nag lu mu yor daa war a dem waaw. <laughs> Euh, sëñ bi sama doom maa ngi kontaan ci li nga wax lépp xam nga benn loxo du te ni organisation bu ñu ko def tamit euh, dafa am lu ma ci yor am wante ñu jiitu maa directrice des am na fi surveillant général am na fi euh, ak ak ak ay ay ñi nga xamante ne ñooy seen njàng bi ñi ak jàngalekat yi moom daal ay koor kii bëree bëri ñoo ne ci biir nga xam ñoom ñoo booloo rek nekk daara ci ko defee ñoom ñëpp tam ñu ngi leen di jotul seen nuyoo seen cant euh, di rafetlu tam seen taxawaay kon noonu la daa maam jaara maam jaara maam jaara ndax mën naa mu ne ndax waaw na wax waxal waxal noo tudd asalaamaaleykum waaw ah, waaw asalaamaaleykum waaw ban maam jaara waxati ko maam jaara soxna soxna maam jaara waaw loolu kon mi ngoog ñi ngi sant bu baax di gërëm ñëpp. soxna maam Diarra soxna dëkk Dakar moo oofu nii ci wetu soxna si ñoo ngi koy sant bu baax a baax di sant mbok yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp seen mbokk Arouna Cissé. moo nekkoon ci présentation bi fii ci Daara Maam Jaara ci Poroxaan di ñaan yàlla ñu teewee ko at yu bari yàgg la fee fekk incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a doon seetaan ci eh, internet bi.